pourcent bu fort la la wax xam nga lutax xam nga lutax tax euh, bon c'est-à-dire euh, Cheikh Anta Diop hmm. attiré wu na ci président de la République Sen kii euh, Senghor hmm. bi signé autorisation Fra Fra avec les Français may ma tuuti ma développé foofu. bismillah gis nga nee la ci commencement bi. un ju un savant juif moom créé bu en 1951 pour lan di ci fagagal arab yi wër Israël pour ñu dëkk hôpital bañ a guerre ak Israël. xam nga loolu si jublu woon. gis nga bi ñu ba nga xam si syrien ñoo jàng chimie. appliqué ba analyser bouillon yi boobu moment yooyu Mimido la tudd Mimido lan fa doon jaay bouillon man fa doon jaay. Hmm. Mimido la tudd actuellement sax Mimido boobu am na benn Syrien bu ko defar Niger. Hmm. man man man jëlee na ma Italie ci internet bi lañ lañ xamanté won syrien boobu. Hmm. albani lañ koy wax. Hmm. monsieur albani bon ci internet bi lañ xam lañ xamanté won mu yónnee ma billet aller retour Milan Niamey. Hmm. ma dem bi ma ma am fa une semaine mu jox ma logement jox ma chauffeur jox ma ni ma dama bëgg nga produiral ma euh, bouillon ma jaay fi au Niger. bon maniko da ngay supprimer de aju numéro bo man ko dañ ko supprimer mu ni du ko def parce que bu ko bu ko defé day perte man ko kon kon kon man man dama ñibi ma ma fa delu dellu ital dem liggéey man experience bobu jaar naa ci ak ak monsieur Elbani. Hmm. gis nga bima ta il y a 2 ans ha demé Abidjan ah fekk na numéro bi ñu ko jaay Abidjan te numéro bobu hmm. le Euh, ki koy defar monsieur Elbani mi koy defar Niger ah mi ngi koy defar Abidjan tuddi ko bon goût bon goût ñu ngi koy jaay Sénégal hmm. te gis nga bon goût bon goût defna émission ak Elage Hadj Mbow mii hmm. euh, rajo Ñaaxeen bi bima génné bima génné mais euh danima buñoo bu verte bobu jóge Abidjan bàq ya lañ ko tudde baqiya baqiya ben mbana lay safal mbana mu leer la rek contrôlé wuñu sax gul euh, ki euh, nombre de glutamate bi ñu def ci ci bouillon boobu. maanaam la woon wala maanaam. kii la cube la rek. cube la waaw. Mhm. genre cube la 12 grammes la. maanaam cube boobu mooy safal mbana. benn benn bi. Mhm. mbana lay safal. mbana ku weddi demoon nga jël nga def. tellement dafa dafa dafa fort glutamate de sodium da la. bu ñooy benn amu ci amu ci amu ci xorom. gis nga Ewut Koni 1957 déggul baax li ma lay wax man dama ci gëstu li ma lay wax ni dama ci gëstu. parce que ñun buñ euh, buñ mosaan def ay recherches Israël dañu jox bourse dañu jox xaalis chaque trois mois ñu dem Paris bu demee Paris di euh musée civilisation africaine bi ne hmm. lu bari fa la ko xamé gis nga. Hmm. en 1957. nous avons fait des médicaments en France d'origine gifle. la hmm. pharmacie est en train de Saint-Louis, c'est la capitale du Sénégal. La hmm. pharmacie est en train de faire. Il y a un an, il y 20 000. il y 20 000 francs. il faut poser des questions.

dañ ko posé une question ni ko ñun de dañoo def benn pharmacie test lañ ko tuddee pharmacie test à Saint-Louis au Sénégal mais pharmacie dafa duxul suñ médicament yi jaru fa ma duñ médicament yi dafa yàqu. te euh, dañ ko bëgg a lawal partout en Afrique réew mu ne ñu def pharmacie pour suñ médicament yi mën a jar ewut ko ni dafa demander échantillon ci li seen waa Sénégal di war a dund ñu yónnee ko ñebbe yone ko gerte yone ko dugub dugub suuna. Mhm. yone ko mbok yone ko laalo et cetera moy li ma ñu daan dundé quoi. Ah. gis nga bi ko analyser ah, mhm. tant que ñu ngi les lii duñu feebar duñu mës a taxaw hôpital. Mhm. ah ñu posons question comme que j'ai fini ñu ngi fi. Euh, ñom ñom lu industrie rek lañu wër. ñu laaj ban ban ban ban ban ban solution nga ne jox ban pexe nga ne jox muy muy leen def leen fa usine saf safal moo indi usine saf safal bi bi fi ci ko def ndox mi ndox mi lañ ci ko defar waaw moom lañ ci ko defar biñ ko defaree jaar ci fonctionnaire yi comme que temps yi fonctionnaire yi ñoo nekk la classe aisée mm. la petite bourgeoisie mm. ci ñoom lañ jaar def publicité Wow, xam nga benn ben rajo moo fi amoon. ah. mais bu en ce moment la la publicité était gratuite nga xam ne day day jël à tout moment heure añak heure reer ak. Hmm. da daan da daan da daan da à tout moment man sama maa man pa ma dëkk len Thiès bi may jàng nga xam si cheminot la. bu Musaana teg añ bi. te tegoo te tegoo butéel boobu butéel butéel bi ci biddiw bi. waaw waaw pour ko. Uh-huh. du wañ du añ de. ndax dafa mën a ñoom parce que da ngay dem ba yàgg yow boo deful yow doo mën a lekk. ngoog mu ne yow lu ma la wax ci commencement nee naa la moo drogue ñoo yem. mais ah. ci commencement nee naa la. glutamate de sodium il a les mêmes caractéristiques que la drogue. mais boobu produit fan la jógee ci ci monde Japon la jógee. Hmm. wala Chine. sel chinois sax lañ koy wax. am nañu hmm. ko naan sel chinois. ivoirien arôme blanc lañ koy wax arôme fi nak ab salum salum commerçant salum salum moko moo ko lon dugaloon tuddi ko ajun mutu ay jamono sax sa bop mu sa na am yoy ngi na wax teñ teeñ boo ko mosaan def mu ray ko. da koy rey. luy ray luy ray teñ kay posan la. wala nga bëgg vider sa fof sa sànni ko ci biir ñetti dom man mom man bouillon yi lay vider sama douche. hmm moom laa koy vider sama douche bu bu feesee bu feesee. Mm. bu ma wo auto bu ñewé mm. avant 30 minutes avant la ci def luma 10 dix bouillon rek 30 minutes mu dag lepp ndox def ndox. mais loolu kon léegi soo ko defee ci biir moom xam moo tax kon xale yu góor yi bari xaw a tële dañuy tële moo indi moo indi tële hmm. waxuma la ko léegi nee naa la boo ko boo jëlee ñaari buyon hmm. daf ko ci repas jox ko xar wala bëy pare na pare na day wàññi tële day wàññi gu day wàññi ngóor. ma fàttali numéro 88 828 11 12 88 828 11 12 ñu ngi ci seen émission waxi mag fii ci Cadre Cœur 104.5 tey nag ñu am Pathé Mbaye expert en chimie appliquée jàng ko fële ca réew yu tugal ya ñëw nag ngir indi ci ay leeral ngir jàppale askanu Ngaye Mékhé ak askanu Sénégal gis ko jamono ji soo jëndee sa mburu il faut que nga nga laaj kay jaay moom mu siwal ci daf koy siwal fii ba ñàkk xam rek. Mhm. ñàkk xam day day posan bu neex. poste day day poste mais mais bombe à retardement la dafay dajalel, da dafay mais tôt ou tard mu la yóbbu tôt ou tard mu la yóbbu. Hmm. waaw te te bu la yóbbu mala maladie chronique la la jox du la jox mala maladie bu nga am si ma maladie maladie microbienne lay doon. Hmm. parce que maladie microbienne am amatul Sénégal. maanaam maladie boo xam ne ay ay ay ay feppi maanaam ñoo ñoo joxe maanaam ci wàllu lekk wala ci nga ci salte mu jox la ko yooyu bëreetul bari bëreetul Sénégal. ah yan maladies lañ fi traité fi mu ne lu ñu fi traité. insuffisance rénale. ABC. Mm. diabète. Mm. ah hypertension artérielle. Mm. glaucome. ah wala bëñ dentistes bëñ xool demal demal ci dentiste ngaay bi. Mm-hmm. day fees del day fees del. kon wéer wéer waaw ñu jël ci ligne bi. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw. am na solo lool lool lool sax. Mm-hmm. mais waa jooju moom la leen waroon fexe mu dem mu dem jàkkaarloo parce que li muy wax nii affaire bi dafa c'est mondial ah nii dafa garaaw. Ah, mi lay dégg. ah vraiment mm-hmm. yéen kooku kii moom vraiment war ngeen fexe def ay le tout pour mu dem jàkkaarloo jàkkaarloo Sénégal yëpp waa monde bi wax lii ah. incha allah waree mu wax ko parce na solo ah. incha merci jërëjëf. jërëjëf sëriñ bi jërëjëf 88 828 11 12 88 828 11 12 borom kër gi nag bu ci toog nag ba sa njaboot di def allo asalaamaaleykum. waaw maaleykum salaam ah, def benn euh, alerte SOS yónnee ko waa service di leen waa poste de santé yi pour ñu xaw mën a euh, dànkaafu population yi. ah man de vraiment maa ngi def ay sensibilisation. jërëjëf. Euh, gis nga mbambara googu gi nga dëkk. Euh, mbaam moom ab Abdou Kounta man xam naa ko. Mhm. Euh, mbambara googu mu dëkk am na formation bu ma fa defoon temps yi rek. ci 88 828 11 12 88 828 11 12. waaw. mbambara. Mhm. temps yi rek dem naa Kër Anali dajale fa wa wa fi wa waa Ngaxam. Mhm. waa Koureg Matar. wa euh, ki Lamdiane bon defna defna dal cette village la. Hmm. ñu formation les bouillons végétal bouillon bu nga xam si amul colorant amul conservateur chimique amul glutamate de sodium mais ñooñu. te dina saf sap day saf sap hmm. même chose lay doon. Hmm. même chose lay doon. mais c'est le même composant la jël. même composant la jël. ñu jël ñu jël salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw na ngeen di ngi delloo ziar. Ah, am na solo de. Ah, lii daal moom jar na ñu ko tegaat bu baax. incha allah ba ñu xam ko ndax nit ñi lekk mooy di feebar ndax li wax léegi tànk ñu teeg. Mm-hmm. yàlla mu nit yi. dëgg dëgg lu lu lu réalité la dëgg la. Mm-hmm. koo gis ñu ngi jàmbat tànk nit. waaw rawatina jigéen ñi. dëgg la ñu daal di leen ko faral di teg bu baax ñu ngi leen di sant di leen ñaar bu baax baax. la yàlla seen xéwal. Amin. Ah, dolli seen xam-xam. amiin te dolli bi doole. amiin jërëjëf sëriñ bi ñu ñu ñaan yàlla mayal fan ak wér. 88 828 12 88 828 12 kon daal yow am nga xam-xamu defar bouillon yooyu te du am maanaam loolu di di gaañ doomu aadama yi c'est facile gis nga ko yéen sax yéen ñii maanaam di gëstu ne ngeen hmm. maanaam bu boo xamee nit ki ba jour la commencé lekk yi jël ko ci ligne bi asalaamaaleykum allo waaw kooku dem na. yéen ñi am xam-xam ah dem na yéen ñi am xam ne ngeen bu ngeen maanaam kuy lekk bouillon yi bu ngeen xamee jour ba mu koy lekk ma ngeen ko wax waxtu ba mu faatu. maanaam yàlla sama rey mais maanaam ni mu koy gaañee di ko wàññi di ko rongé di ko rongé ma ngeen ko wax. bon man bu bu ma xamee ñaata bouillon ngay lekk par jour. mën naa la calculer jour bi heure bi ngay dee mën naa ko mën naa tëdd tëdd tëdd rate. manam ki commencé lek bouillon. man bu ma xamee na ñaata gram ngay lek ñaata gram ñaata gram ngay lek waaw ci bouillon. man hmm. na la calculer jour bi ngay dé manam faram wax ma ci lu leer. lu leer waaw manam manam ay ay calcul scientifique la. scientifique la <laughs> waaw. Hmm. léegi léegi na kon ñu xey di jëm mburu di ci def nga añ mu nekk ci nga reer mu nekk ci bala nga tëdd dem ci manam ña ña ñàkk xam. ñàkk xam xam nga xam nga ki personne bi lay ray sur le champ. Hmm. pH bi égal à 14 moom boo 14 moom boo koy lekk moom sur le champ buy dugg sa biir ngay ngay ngay dee mais euh, juif yi ay saay-saay lañ dañ ko ko diviser par deux c'est-à-dire euh, dama la bëgg indil données scientifique ou gultement de sodium. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw Gultement de sodium la ko français wax. Mm-hmm. italien di ko wax glutamate glutamate monosodique c'est la même chose d'ailleurs yasser arafat ci lañ ko reyé hmm. ya-, yasser arafat hmm. ci la ko israélien ray parce que dañu jël jël sa glutamate de sodium bi jaar ci cuisinier bi hmm. jox ko ko niko ki c'est c'est du sel de luxe xamu ci dara mu jël rek di ci bu ko togal rek dafa ko ci xëpp ko ci xëpp ko ci mu di ko lek rek ba organe dag hmm bon man boobu man mangi Italie. Mhm. les ma di suivre bulletin de santé bi médecin médecin bi njëkk a publier. Mhm. dañu def rek bulletin mat lolu lañu def tout court. Mhm. mais bon xam nga mun mun mu mu réagir. mais deuxième bulletin de santé bi. ci la ko gis ñu def ci de sodium muy C5 H9 O HO4 C5 ni ni may de mën note ñu internet mm-hmm. vérifier ko C5 H9 HO4 moy formule chimique glutamate de sodium mm-hmm. son pH est égal à 7 code international mm-hmm. est égal à 621 densité bi 1,46 g par mol gis nga pH bi. Hmm. set bi. Hmm. ak densité bi 1,46 gramme par mol xam nga bariwul. ci lay jufi yi sukkandiku pour pour pour pour simé ko bouillon yi pour mu lay dajalel ndank ndank ndank ndank ndank ndank bu matub kilo bu matub kilo rek paranga, té du res hmm. produit chimique du res man na man na don ngelaw nang nga ko mais du res produit chimique du res bon ba pare Euh, day see ci ndox mooy solubilité dans l'eau loolu mooy loolu loolu mooy donné scientifique bu glutamate de sodium gis nga dinaa leen defal aussi beneen démonstration bu nga xam ne si ni muy joxe cancer. bisimilah waaw ni muy joxe cancer. Mhm. xam nga li naan bile wextaan. boré boré xar ah, ci res bi ben ah. bus, ci amna ci ben mbous bu buy def ndox ñu nan ko ñu nan ko wextan wa wextan ah. hmm. bobu pH bi est égal à 8 moom posan la da fay xat xam nga xam nga ñum ñaar ñoo xaw tolo hmm. bi bi 8 la wextan bi 8 la bultemate hmm. bi def ci bouillon yi 7 la mais bu wextan bi dafa négatif moy la moy la cest moy 8 la

plus 9 wala mooy 7 plus 7 wala mooy 8 plus 8 gis nga buñu tolo hmm. buñu tolo rek day exploser toj tar hmm. ñaar liquide ñoy